xuriti looyeen jóg leen la jéey ba ñëw na sëriñ Mataar Lo woote na la jéey ba ñëw na muriti looyeen leen la jéey ba ñëw na sëriñ Matar loo woote na liggéey ba na sëriñ Matar a jox ndigal sëriñ Abdoulaye sëriñ Abdoulaye soñi rakam ne jóg doomi maam soxna Mbàkke cër ba ñëw na mooy satub ñoom rek daaru liggéey ba ñëw na doomi maam soxna Mbàkke cër ba ñëw na doomi ñoom rek daaru cër ba ñëw na képp kuy murit jóg dem bingel képp koy taalib bépp sëriñ bit ñel jë naa